lew woo xamante ni nag eh, day dajale yenn ci ay décideurs yoo xamante ni daañ fa waxtaanee ay eh, ponk yu eh, bari lu ci mel ni wàllu développement social wàllu koom ak itam ana nan la ñuy def rek ba càmm li nga xam ne moom moo di alam gi ca boobu leen ndaje itam Youssou Ndour am na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati nañ ko fa ginnaaw bi ñu ko amalee ci ab visioconférence ndax itam jàngoroy mbas wi nga xam ne moom moo gane si àdduna wërngal këpp ñu digtal leen kaddu yi nga xam ne tukkee na fa te daal di koy yëkkati. ñëpp ni ko Christophe Maé waxee ci euh, tënk musique nag euh, dëgg la dañ ci déglu euh, di bëggal suñu xol waaye doon na it loo xam ne dañ ci jaarale ngir gunge nit ñi ndax musique te ab force la lépp rek ngir kon gën a biral li nga xam ne nii liggéey la gu am solo gu ñuy def tey dañuy wax éducation ak bépp sensibilisation guñ koy amal waaye di fàttali ni depuis Paris ak COP mu am liggéey bu bëri boo xam ne ñu ko doon séntu séentu muy kon lépp lu ñeel réchauffement climatique gi loole ñu dind ko mbala sax wàññi ko bu baax a baax tey àdduna bi dafay taxaw lépp rek ñu war a kon gën a liggéey te xalaat naa ni loolee doon na loo xam ni ñëpp ñoo ci war a jàpp moo xam artiste bi moo xam financier bi mbala sax ka nga xam ni nit ba tey day yëngu ci mbirum politique. àdduna bi fi mu toll dafa laaj ñuy jàppalante di dimbalante. liggéey bi nag des na lu bëri Christophe Maé ma koy nuyuwaat ndax moom doon na koo xam ne ni bëgg na Afrique lool di fa teew rawatina Sénégal di fàttaliku bu ñëwee ak taxi muy dugg di wër dëkk bi muy doon mbégte lool ci moom muy déglu sax musique nga xam ne ni musique locale la ci Sénégal jëflante diggante nord sud boobee lu am solo la te ñu war ko gën a doxal lu baax li ñuy def nag bu accès ba foofu doon na lu am solo ndax war nañu bàyyi lool xel Afrique laaj na it ñu gën ko taxawu ci lépp loo xam te bokk na ci la koy gën a sigil. maam Birame Diouf moom moo tekki yooyu la kàddu yeneen loo xamante ni Youssou Ndour daal na ko fooy waxtaanee moom moo di ñu daal di neenal uh, bor bi ci tundu uh, Afrique ñu teewlu tënk li nga xam ne Pape Fara Ñing ababa kamara ak Amadou Ba def nañu ko. te waaye lu ëpp fanweeru njiit yoo xam ne ñoo nekk ci àdduna bi di jël ay décision bokk na ci président bu France Emmanuel Macron chancelière allemande bi di Angela Merkel président bu banque mondiale prince héritier bu Grande-Bretagne ak kii di secrétaire général bu ONU ci ndaje mi nga xam ne moom lañ jëppee One Planet Summit diñ koy amal nag jamono ji ci diwaanu Paris star sénégalaise bi nag ñu woo ko ci boobu leen ndaje mu daat ciy profité wax ndax xalaatam ci impact changement climatique bi rawatina ci wàllu biodiversité fii ci Afrique. dafa nekk daje buy wax ci wàllu environnement. environnement réchauffement climatique mooy maanaam àdduna bi aujourd'hui ci niveau environnement yi nga xam ne moom mooy question yi waaye xool aussi loolu nan la mën a impacter ci li nga xam ni que moom mooy biodiversité mooy maanaam xam nga yooyu yëpp boo koy wax di nga gis ne que affaire koom-koom dina ci am solo ñu bëggoon leen expliquer que nag que ne jafe-jafe yi am ci wàllu environnement li nga xam ne ñu mooy contribution réew yëpp Afrique li muy indi ci jafe yooyu. barewut li koy gën a indi jafe-jafe yi mooy ñoom seen pollution yi nga xam moom moo jóge ci dëkk yi nga xam ne dañu am koom-koom mooy maanaam li ñuy wooyee pays riche. ngir lu soxal Afrique tax yu su Ndour solaat robb avocat am di plaider ngir nag ñu baal dëkku Afrique yi seen bor yi. mooy maanaam bor bi nga xamee ni que Afrique yoreel na ko Occident ñu fexe nan lañ ko dindee ci ay conditions buñ ko dindee nag. dina permettre yooyu nga xam ne dañ koy ragal yëpp ñu mën ko jël en charge ba pare investir ci ay infrastructures yoo xam ne ànd na ak jafe-jafe yooyu pour régler les problèmes que nous vivons donc je pense que dafa lié def nañu fi ay waxtaan man ak président Modou Giro ñoo ko jiite ànd seeg ay kàngam yu mat. waaye nag faaw yorin bu rafet ak dal ci dëkk li nu wel bokk na ci condition yoo xam ne yu Ndour jàpp na ne mooy mun a tax ñu baal ñenn ñi seen i bor. xam nga boo gisee ñu ne sous condition moom mooy euh, aujourd'hui suñu baalee euh, dara nga xam ne xaalis lay doon fan lañ koy dugal ak lan lay régler. yooyu yëpp condition yoo xam ne la que techniciens yi dinañ ci waxtaan pour mën a xam mais xam nañu ne que li tar te jot te war a am moom mooy ñu dindi bor bi. boobu boobule woy sax ak discours Youssou Ndour la ñu ubbee ñetteelu audition One Planet Sommet nga xam ne ñeent ci ay thèmes yu mag fa fas nañ ko cay waxtaanee. bokk na ci protection écosystème ci wàllu suuf ak wàllu géej gi ci njeextalu ndaje moomu nag ay décision yu mag ñu ngi ko ciy xaarandi gannaaw ba atum 2002 lii di mbasum coronavirus daal di koy salfaañi jërëjëf Pape Faranjing cant ak ngërëm ñaanal la mbokki leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar maa ngi leen doon